tey département Pikine département bu peuplé te département bi yëpp boo xoolee de centres de santé ñoo fi nekk centre de santé yi nag ñoom ñoo am des spécialités yoo xam ni tey ñoom ñoo ko mën a def te damay jox exemple jigéen bu wan war na war a gis benn gynécologue mais gynécologue mënoo ko gis ci poste de santé ci centre santé nga ko war a gis donc loolu nag bu ñu xoolee pour ñu dem gis gynécologue il faut ñu dem si privé yi wala ñu dem hôpital wala ñu dem ci yenn zone yi dañoo nekk zone bi nga xam ne zone bu défavorisée la moo tax suñu objectif centre de poste de santé bi nga xam mooy poste poste euh, poste Thiaroye du Thiaroye ñu transformer ko en centre de santé pour permettre de relever le plateau médical avoir d'autres spécialités pour waa Thiaroye bañ a génn ci Thiaroye dem di faju loolu nag dugal nañu requête bi au niveau de la santé te gëm nañu incha allah rabbi fan yu néew dinañ ci am réponse boo xam ni réponse bu neex lay nekk waa Thiaroye maa ngi jënd xayma bi toll na ci 16 millions lu bees jël li nga xam ni matériel bu yàgg la di ko fa def donc loolu moo tax ñu ne bañ def bu ñuy def inauguration bi il faut ñu defal matériel bu bees donc donc loolu nag dañuy gërëm conseil municipal bi yëpp yi nga xam ni ñoom ñoo voté budget bi dugal lu toll fukki million ak juróom ak benn pour ñu jënd matériel bu bees tax tey am nañ sunu bàjjen gox bi bañ koy kii mu ngi def ay témoignages ne ni matériel bi ngeen jënd amul hôpital Thiaroye donc loolu nag day wan ni am na effort yu ñu def mais effort yooyu ñu def nag doyul